ziyaare ci barab bu sell bii nga xam ne fi lañu toog di fi waxtaanee muy jumaan Cheikhul Xadim radiyallahu anhu nuyoo ba ak ziyaar boobu nag ñu koy tàmbalee ci Maulana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu boroom guddal fanam te kàttanal ko te barkeel ay yëngoom yépp di dolli tamit di jottali ay kàdduy yu sant bu baax jëmee ko ci daayira bi nga xam ne mooy daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi ñoom la sëriñ bi teg ci seen loxo lépp lu aju ci jumaa ji ci ñu di ko taxawu teñ di ko taxawu taxawaay boo xam ne mbooleem taalibe sëriñ bi yëpp rafetlu nañ ko di leen ci sant di leen ci ñaanal ndax ñoom lañ koy defal kon cant googu nag ñu ngi koy teg ci loxol suñu nijaay sëriñ Afia mi nga xam ne moo jiite daayira bi muy daayira bu am solo boo xam ne li ñu bàkk wi ñu teg seen kanam rek day jëmmal taxawaay am solo yi ñaam te mooy tudd tudxilil musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bil haadil wa fii bayitu sëriñ boobu la ñu jël def ko muy bàkku daayira bi muy li nga xam ne moom lañ teg seen kanam loolu rek jëmmal na taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def kon ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay yi ñu am ci yii ak yi ko jiitu di ñaan suñu borom kàttan na leen te fay leen Euh, di rafetlu bu baax waxtaan yi ñuy amal ci koor gi nga xam ne sikk amut ci rek dafa dugg ci li cheikhul xadim doon wax ci weeru koor naan mukarraman bi xirat taati wa sadadi mooy weeru koor dañu koy màggal dañu koy ganale waaye li koy ganalee nag mooy ay topp yàlla ak ay jëf yu baax kon lii ci yooyu rek la dugg di leen ndokkeel bu baax ci anam gii ñu ko amalee ren ndax ku ne xam ne ne jamono soppeeku na ba lu bari ni daan demee munta ne waaye teewut déggug jamono gu ñu gu am ci daayira bi ñu ko jiite tax na ñu xool ba euh, nu mu gën a méngoo ñu defee ko ci anam goo xam ne daañu sàmmonteeg li jamono laaj waaye du tey daañu def loo xam ne julli ñi daañu ci mën a jariñu ak fépp mën a ne xam naa nag jotaay bi dana xaw a euh, feeñ ci wax ji tuuti ndax dafa am ñaar ci daje mooy am na ñaari sell yu daje ci waxtaan wi bi ci njëkk mooy jamono ji ñu koy def muy weeru koor euh, ndaw ku ndaay bu waxtu bi jotee du tax ñu sawar lool ci wax ji ñaarel bi it ndax ñom la sañ tuddu ñaarel bi tamit moy fi ñukoy defé defee na lool suñu sëriñ bu baax bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kon barab bi dana am lum la ci anam gi ñi waxé loolé du ñak dana feñ ci biir waxtaan wi euh tombu bi sëriñ abdullah junj moom la ñu war a waxtaanee al ukhuwatu fillah mbokk gi nga xamné mo dox ci biir julinn ñi muy tombu bu am solo bu daayira bi jël jamono ju ne war nañ ko waxtané waye rawti na jamono yi ñu nek nga xamné àdduna bi ak ni mu bindoo léegi li ñuy wax mondialisation bi mu amee nga xam ne ak gëndaloo am na ak xëttaloo ba kenn mën a tuta toog rek euh, fa mu weet di dund cosaanam ak lam xamoon démb ak bërki démb ndax àdduna bi ni mu bindoo saa boo tëjoo jàppoo ne tëju jàppal ne tëjuwaale nga li nga li nga doon daw ci sa biir kon tomb bi jamono ju ne waxtaane ko jaadu na waaye jamono ji ñu toll nag ci la gën a jaadoo ngir jullit ñi gën a mën a xam li leen lislaam digal ci seen diggante ñu war koo gën a sàmm ndax loolu ndamul lislaam mi ngi ci doole jullit ñëpp mi ngi ci ni ko sëñ Abdou Lahad waxee it waxtaan wi daañu ko tënk-tënk bu gaaw rek ñeenti tomb gën gaa bari wala ñett daañu tàmbale rek wax ci mbokk googu mooy lan ginnaaw yi dañoo wax ñu jàngat ko ci njàngaleem Cheikhul Khadim kon dina baax ñu wax Cheikhul Khadim buñ ne njàngaleem sëriñ bi lan lañ ci jublu ci anam gi bu loolu jàllee danañu wax ci ay ponk yoo xam ne bu mbokk googu doonoon am mbaar ñu mën ne mooy jën yi nga xam ne moo taw mbaar moom bu loolu jàllee danañu wax ci yoo xam ne it xëy na mbokk googu bu taxawee it yooyu yu mat a wattandiku la ndax bokk na ci yi nga xam ne mën na koo yàq wala mën na ci indi ay jafe-jafe maanaam bu doon mbaar mu taxawle ñu mën ne loolu ay ay max la yoo xam ne yàq jën yi nga xam ne ñoo taawu mbaar bu loolu jàllee nag ñu indi ay jeexit yoo xam ne bi li jàngale ci al uxuwatu fillah muy mbokkoo gi ak li ci jëf yan jeexit la am nag ci moom sëriñ bi yan jeexit la amit ci njabootam moom sëriñ bi bu ko defee daal di tëj waxtaan yaakaar naa bu fekkee waxtu xaj na fi kon ci tàmbali rek bu ñuy wax al uxuwatu fillah mooy lan mooy ak mbokkoo ci yàlla wala ak mbokkoo ci pas-pas wala mbokkoo ci diine lii mat a njëkk a xam rek mooy ay mbokkoo dafa am ay xeet mën nañoo am lu mat ñetti xeet yu yaatu bi ci njiitu mooy mbokkook doomu aadama gi nga xam ne doomu aadama yépp bokk nañ ci mooy mbokkoo gi nga xam ne rek nit ñëpp ñu ngi jugee ci ku ñuy wax sayiduna adam ñu jëlee ci moom xawaa muy wàcc nag ba ni ñu agsee ci ñun mbokk googu mbokk doomu aadama la rek moom uxuwa insaaniya la goo xam ne nit ñëpp ñoo ci bokk nit ñëpp rek boo leen delloo ci benn cosaan la ñuy dellu mbokk googu bokkut ak gi ñuy waxtaane mën naa am geneen mbokk it gu ñuy wax mbokk jegeñaale goo xam ne ci wàllu deret lay doon koo xam ne xëy na da ngeen di bokk ci meen wala ngeen bokk ci géño maanaam ci wàllu baay wala ci wàllu waajur wu jigéen mbokk gogo it gu am solo la ci l'islam waye bokkut ak gi ñuy waxtaane am geneen gu len ñettel goo xamne mo geuna yëkëti ku ci biir diine ji te moy al ukhuwa fillah moy al ukhuwa al islaamiya mooy mbokk gi nga xamne mo lëkkale julit ñi nak nga xamne ku dugg ci diine ji rek yam na ci ak ñëpp waaye wala yaasu billah kep ku ku génn ci diine ji it amatu ci dara kon mbokk gogo moy gi ñuy waxtaane tey ñi ngi koy waxtane ci biir njangalem cheikhul khadim buñu waxale njangalem serigne njàngaleem bi it dina baax ñu leeral bala ñoo dugg ci waxtaan wi ne njàngaleem sëñ bi mën nañ ci ñeenti barab mënees na ko ci wër mu imma li nga xam ne moom da koo bind wala loo xam ne da ko wax wala loo xam ne da jëf wala loo xam ne da cee yar ñi mu àndaloon ñeent benn bu ci nekk ay balluwaay la yoo xam ne la cay génne day dugg ci biir njàngaleem sëñ Tuubaa lu mu wax wala mu jëf ko wala mu yare ci wala mu bind ko mbokkoo gi nag doon lu am solo lool ci biir lislaam ndax sëñ Abdulaat junj na ko sànq suñu borom wax na ci alxuraan ne innamal mu'minuna ikhwa moy nit ñi ay mbokk lañ déedéet firiwul lol sax moy nit ñi ay mbokk kep lañ ndax innama ci adawatul hasr la bok yi nga xamne day teunk moy jullit ñi dal innamal mu'minuna jullit ñi ikhwatun ay mbokk kep lañ ak fuñu mëna nek jullit ñi ay mbokk lañ kon lolu rek doyna ci ñu xam solo si nga xamne ak mbokk amna ko ci bir ci bir l'islam suñ borom tudd na ko ci anam yu bari xamal jullit ñi it ne leen mbokkoo gii mu def ci seen biir xewal la goo xam ne da leen koo xéewale wazkuru nicmatallahi aleykum is kuntum aadaan fa allafa bayna xulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana bi nicmatihi ixwaana mbokkoo googu mu def seen biir ne leen da leen a fekkoon ngeen teqali ko doon ay jàmbur ñenn ci seen biir sax daa noonoo lislaam ñëw boole leen ngeen nekk ay mbokk mel nañu bokk lépp loolu xéewal la goo xam ne na ngeen ci sant seen borom kon mbokk gogou julli ñi nonu lañ ko wara a ne xéewal la gu leen seen borom gisee gu leen seen borom baxé ñu war ko sam te xam ngeen an ni'matu in in shukirat qarrat wa in kufirat farrat xéewal mom buñ ko santé rek mu dess fi waye buñ ko weddee wala santuñu ko mu woné ginnaw bu ñëwé ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam momit soñé na bataay ci wax solo ci nga xamné ne mbokkoo gi am ko ci bir l'islam xam ngeen al muslimu akhul muslim ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jullit bu ne julit rek moy mbokam wax sax julit ñi ni ñu war mel ci seen biir ba melal leen ne julit ñi day ni ñu war mel ci seen biir ci dimbulante ak jappo nek ben day melni ab tabax bo fekk mu taxaw birig yi ni ñuy jàppaloo ba nga xamne doto xam bu ci fete ne bu ci fete ne julit ñi non lañu wara mel ci seen biir muy al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu ba'du ba'duhu ba'da ne julit ñi kat dañoo wara melni rek ay ay birig ni ñu jàppaloo noonu la war a dimbalante seen biir mooy ku ne ni nga def sa moroom rek ni nga def sa bopp noonu nga def sa morom wax sax feneen ni ni ñu war a mel ci seenu bëggante ak di bokk naqar ak di bokk tiis yi dafa war a mel ni yaramu doomu aadama mel ni nga xamee ne nit bu boppam dee metti day mel ni day feeñ ci jëmm jëpp bu loxom dee metti day feeñ ci jëmm jëpp bu bëñam dee metti day feeñ ci jëmm jëpp te doonte bëñ bi rek ay metti waaye day feeñ ci jëmm jëpp dana tayal dootu sawar dootu bëgg lu bari ne jullit ñi non lañu wara mel ci di bokk seeni bànneex ak seen naqar masalul muminina fi tawaddudihim wa tarahumihim kama kamasalil jasadil wahid iza shaka minhu udwun tadaa lahu saa'irul jasadi bi sahri wal humma ne jullit ñi non lañu wara mel kon amna solo lol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundal nako ko ba tey xam ngeen mbokk gi rek moy gi ñu jàpp ci l'islam bu ñu ñëwé dañuy fekk ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku melni Abu Lahab mbokkam won ci walu deret waye pass pass dox na seen diggante Abu Lahab duggu ci l'islam kon uxuwa gi bokkuñu ko ñoom ñaar day mel ne bokkuñ dara waaye ci même jamono jooju dañuy gis ku mel ne Bilaal ibnu Rabax nga xam ne bokkuñu ci wàllu deret waaye bi leen lislaam boole yonent bi def na ko muy mbokkam mel ne mbokk mi ko gën a jege xam ngeen salmaanul farisi salmaanu minna ak ñu ñooñu ñoo xam ne lislaam moo leen boole kon mbokk gi mooy mbokk goo xam ne rek euh, moo dox ci diggante jullit ñi ku dugg ci lislaam kenn ëppaleetu ko ci waaye wala iyaazu billah ku ci génn amatu ci dara bëri na loolu ay ngëneel ci dundal ko doy na ci rek li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu ëllëgee yomal xiyaam suñu boroom kum keralu du am ker naaju dina tàng lool daañu wàcc jant ba mu gën a jege nit ñi daan ne dana am juróom-ñaar ñoo xam ne suñu boroom dana leen keral bu bis ko regee daan ne juróom-ñaar ñooñu nag bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante yàlla rek tax mooy ñaar ñoo xam ne seen mbokkuk lislaam gi moo leen boole moo tax ñu bëggante yàlla tax xam ngeen loolu lu kawe la mooy dana maye kon xéewal ëllëg yomal xiyaam wax na ci it ne mbokkoo gi dundal ko dina tax nit ki dana tax nit ki suñ borom bëgg ko dana maye bëgg suñu borom te xam ngeen loolu mooy lépp xam ngeen sa boobu nit kooku génnoon doon demoon di seeti menn mbokkum jullitam ci beneen dëkk bu sori bi muy dox ba ci yoon yi menn malaaka ñëw ci jëmmi nit dajeeg moom ne ko yow foo jëm mu ne ko man de damaa jëm dëkk sàngam di fa seeti sama menn mbokk muna ko ndax da am lu ngeen bok wala lo am ci mom mu ko dedet diine ñu boole rek ma motax ma diko ko bëgg ko bëgg gi mako bëgg ci yalla rek la ko bëgg muna ko sa borom mi ngi lay xamal ne la bëgg gi nga bëgg sa sa mbokk mom tax na bëgg na kon loolu bokku na ci ngeeneel yi mu am mbokk gi dundal ko moy dina tax suñu borom bëgg jaam bi ak yudut yoy ci ay ngeeneel yo xamne mbokk gi am nako bu ñu ñëwé ci tomb bu ñëkk bi nak té moy mbokk gogu nak yan ponk la am yo xamne manam bu doon mbar ay poto wala ay jën yoo xam ne ñoo koy téye ba mën a taxaw ba dëgër mën mënees na cee tudd juróom rek yoo xam ne ci anam gu gu tënk lay doon goo xam ne yeneen mën naa dugg ci biir juróomi mbir yoo xam ne benn bu ci nekk daañu ci jaar jaar bu gaaw waaye nag bu ñu koy jàngat ni ko sëñ Abdoulaye waxee woon sànq dañ koy jàngat ci ni ko sëriñ bi jàngalee moo xam ni mu ko bindee wala ni mu ko dundalee moom sëriñ bi juróom yooyu bi ci njëkk mooy di bëgg te yàlla tax alxubbu fillah ñaareel bi mooy jullit bu ne nga yéene ko li nga yéene sa bopp yéene ko aw yiw niyatul xayr ñetteel bi mooy jëflante bu rafet ak jullit bu ne muy xusnul muamala ñeenteel bi mooy di dimbalante ak sa mbokkum jullit mu ne ci lu baax juróomeel bi nag mooy di dundal mbokkum jullit gi te wattandiku ci lépp loo xam ne ak parparloo la wala ak boddikonte ci biir mbokk gi bokk ci genn kuréel warta tax ngay boddiku sa menn mbokk sa menn mbokkum jullit ci biir ci biir diina ji euh, benn bu ci nekk daañu ci jaar jaar gu gaaw wax lu ci sëriñ bi wax ak lu mu ci jëf bu njëkk bi mooy alxubu fillaahi lillah bëgg te yàlla rek tax jullit bu ne war naa bëgg mbokkum jullitam te yàlla rek tax ndax xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dafa wax jullit ñu ne leen yéen de da ngeen xam ne du ngeen dugg aljana mukk lu dul ne da ngeen a gëm yàlla te it seen gëm yàlla googu du mën a mat mukk lu dul ne da ngeen a bëggante ci seen biir lan tadxulul jannata xatta tu'minu walan tu'minu xatta taxaabbu da ngeen xam ne seen ngëm googu du mat mukk lu dul ne dangeen a da a bëggante ci seen biir kon bëggante googu lu munta ñàkk ci biir mbokkoo googu la sëriñ bi it jàngale na ci lu bari bind na ci lu bare bare bari bu ñu demee jawharul nafis dañu fekk muy wax wa ahbibil mumina lil imaani wal tubghi lil kaafira lil kufraani képp ku dib jullit na nga ko bëgg bëgg koo xam ne nang ko bëgg ngir lim gëm yàlla waaye képp koo xam ne daa weddi yàlla it na ko bañ ngir weddi gi mu weddi suñu borom kon booy bëgg na yàlla rek tax euh, wax waxit ne taalibe yépp mi ngi leen di digal ne nañ bëgg mboolem mbindeef yépp nañ leen yéene aw yiw xibba jamia al muminina naawiya xayran lahum takun li xayrin xaawiya jullit ñépp na nga leen yéene na nga leen bëgg te yéene leen lu baax soo ko defee loolu bokk na ci li nga mën a amee lu baax yow yow taalibe bi jéggi foofu sax moom sëriñ ba wax ne bokk na ci jikko yi gën a rafet yu ab jullit mën a jikkoo mooy muy bëgg te yàlla tax wa afdalul xisaali xubbun fil jamil wa afdalul xisaali xubbun fil jalil وفي الرسول حبه نعم الخليل نبوك نتي جيكو رفت غنا رافيت نيت كي بوي بغ مو بغ تا يالا يونتي صلى الله عليه وسلم رك تخ مو بغ تا دين تخ كون لول لو مونتا نياك لا تي بير تي بير مبوكو غي امنا فنان فوج بو ني ديمي تي بينوم سيرن بي فومي تنكات القران يو خامني جوليت كوكو تي باي خيل نونو بن جلد ني موي ان اك انما من اتخذ ان وانما فلا يعادي مسلما انما المؤمنون اخوه inna shaytaana lakum aduw ne ñaari aay yi bépp jullit bu ko bàyyi xel du noonu benn mbokkum jullitam mooy suñ borom wax na ci alxuraan ne inna shaytaana lakum aduw ne yéen jullit ñi kat na ngeen xam ne shaytaane seenum noonu la jàppee leen ko noonu nee na kon noon bi leer na nee na am na feneen fu alxuraan waxit ne innamal muminuuna ixwa mooy jullit ñi ay mbokk dong lañ nee na kon loolu leer na ba bépp jullit bu ko bàyyi xel fu jullit nekk du ko defum noonu waaye faaw dina ko bëgg ndax lislaam tënk na lool ak yudut yooyu yoo xam ne sëriñ bi wax na ko ci solo si nga xam ne jullit bu nekk bëgg mbokkum jullitam am na ko bu ñu ñëwee ci moom sëriñ biir lim ci jëf moo gën a yaatu sax lim ci wax dañ koy fekk muy muy wax naan moom day ci suñ borom lay jàppee ci suñ borom lay bàyyee képp ku gëm suñ borom def na la mbokk képp ku ko weddi sequ leen dara bihi uaadi wa bihi uwaali wa huwa taala mu mutaali al waali ne suñu borom daal ci lay jàppe ci lay bàyyee ku ko jàpp ma def la ne sama bokk ku ko wan ginnaaw wan naa la ginnaaw moo tax mu daa wax naan jullit ñépp góor ñi ak jigéen ñi samay mbokk lañ almuminuuna ixwati wal muminat lii akhawatun wa xayaati xasanaat ne jullit ñëpp ak fu ñu mën a nekk ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi man cheikhul xadim ay mbokk laa leen jàppee jàppee googu mu leen jàppee woon ay mbokkit jéggi woon na foofu waaye dalaa ñaan suñu borom sax naa ko ma defal ba jullit ñëpp ma bëgg leen wa agrina bi xubbi kulli muslimi wa najjina min charri kulli mujrimi na nga ma def ma doon koo xam ne damay bëgg mboolem jullit ñëpp هب لي دواما حب هب لي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم maa ngi lay ñaan ma sax ci nga defal ma sax ci bëgg mboolem jullit ñëpp ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bëgg googu suñu borom defal na te feeñ na fu bari ci mbindam moom sëriñ bi bu ñu ci mbindam dañuy gis fu mu fay ñaanal jullit ñi ba bu ñu màndaxee sax fi mu ñaanalee jullit ak fi mu ñaanalee waa rek dañuy gis ne fi ñaanal jullit ñi moo gën bari lool gën a ci ni muy ñaanale waa këram lu mel ni xasidak jaalibatul maraaxib da ngeen gis waxfir li kulli muminin wa mumina magfiratan li kulli xayrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima magfiratan tansimuhum min zalama waxfir li kulli muxsinin wa muxsina magfiratan lahum taxudul hasana maa ngi lay ñaan suñu borom jullit ñëpp na nga leen jéggal seen i bàkkaar jéggal goo xam ne di nga leen ci mayee bépp yiw ñu sàkku njéggal goo xam ne nga leen ci musale ci bépp tooñkat njéggal goo xam ne lépp lu ñuy sàkk ci lu baax àdduna ak àllaaxira di nga leen ko ci defal loolu bawul benn jullit jullit bu dëkk senegal ak jullit bu dëkk Chine wala bu dëkk feneen a ci yam sëriñ bi noonu la jàppee woon jullit ñi mooy buy ñaan ñépp lay ñaanal xam ngeen xasida fastajaaba lahum rabbuhum muy xasida gi tàmbale ci farij bi jaahil Mustafa xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ci ñaanal farij bi jaahil Mustafa an ummatihi yaa muxrijan abdakaza min ummatihi xam ngeen ci biir xasida gi ci lay wax jamilu awsil li jamii almuslimin wal muslimaati am na rabbil alamin suñ borom maa ngi lay ñaan jullit ñépp góor ak jigéen nga may leen jàmm fuñ mën a ne nga may leen sécurité uktub safaan li jamii muhsinin wal muhsinaati yaa al muminin gis nga ñaar yooyu la ñaanal jullit ñi mooy al amna wa safaa sécurité akuk dal mooy tranquillité maanaam atamahum min juuin wa amanahum min xawf ñaar yi nga xam ne munta ñàkk ngir jullit bi bëgg dund ak diineem ci ci anam gi ñu ko bëggee mënta ñàkk yooyu mooy mu am jàmm te am dund gu tey mu ñaanal ko jullit ñëpp ne ko fépp fu ñu mën a nekk maa ngi lay ñaan nga defal leen loolu. kon yii ma wax ak yu dul yooyu yuy leeral la di dëgëral ne jullit ñi di bëggante ci seen biir ab tomb bu mënta ñàkk la ngir mbokk googu bu ñu ko bëggee saxal ñaareel bi ci ponk yi mooy jullit bu ne nga yéene ko yiw bi nga yéene si bopp. xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbuhu li nafsi kenn ci yéen du am ngëm gu mat lu dul ne day yéene mbokkum jullitam lim yéene boppam loolu it bu ñu demee ci sëriñ bi jàngale na ci lu bari bu ñu demee ci lu mel ne dénkaan loolu mu bindaloon suñ daam abdurahman loo tuddee ko fatxul manaan fi jawaabi abdirahman mi ngi ko ca wax naan ko yaa ayuhal muridu ahbib li kulli muminin ma tuhibuhu li nafsik tadxulil jannata bi gayri xisaab ne ko maa ngi lay digal julit bu ne ak fu mu mën a julitoo nang ko yene li nga yene sa bop boko defé bok na ci yoon yi gëna gaaw ci nga tàbbi aljana ci lu amul ben jafe-jafe bu ëllëgee lolo tax ba mu daan digal talibé yépp mom sëriñ bi naan len kunu muhibbina al xuyuura li jami' xalqi ilahina al muqaddami al badia mbooleem mbindee fi suñ borom yépp na ngeen len yene aw yewu te na ngeen len yene lu bax te yàlla rek tax da len wax sax nak njariñ li nga xamné dana juddo ci képp ku bëggal mbokum julitam lim bëggal bopam من حب للاخ الذي يحب لنفسه رضي عنه الرب نين خامني كات يين سا مبوكم جولي لي نين سا بوك بوك نتي لي مي ماي موي غرمول سوني بوروم تي غرمول سوني بوروم موتاخ نين ني نتي كاو سوف موم رك لا ني ساكو واخ لين ني لين موتشو ادنا الاخره جوليت مونو كو ام لودول ني دا فا تنكو تي موي يين لو باخ واخ لو باخ داف لو باخ اك ساختي لو باخ السلامه والعافيه في الدارين تتولدان السلامة والعافية في الدنيا والآخرة تتولدان من نية الخير وخول الخير وفعل الخير وملازمة الخير نلا نينتي كيب كو بغا موتشو ادنا الاخره فاو مو ساختي نينتي يين لو باخ دي واخ لو باخ دي داف لو باخ اك ساختي لو باخ خام نين تومبام يوي سيرين بي دان تومبو غا خام ني تي موتتي بيم ديمي با خات دغ دغ لا جانغلي نونو نين امنا بيس مو ген داجالام اك ني نلن ندا خام نين لوي تول ñu ne ko waaw xam nañ li tul mu ne leen mooy lan am ñu ne tul mooy loo xam ne ku ko am weñ du dugg sa yaram mu ne leen waaw dama leen doon wutal tul tey bismillah xëy na am ñu jàpp ne sëñ bi na bind leen nangam di ko takk wala mu tomb ñett tomb ne leen bul bul def kenn lu bon bul wax kenn lu bon bul yéene kenn lu bon ne boo ko defee ku la wax lu bon lii wala mu def la lu bon lii wala mu yéene lu bon lii ci kawam képp lay këpp ne leen tula ngoog joo xam ne bu ngeen ko takkee du toj mukk jub dem bàyyi leen fa loolu mooy loolu yéene nit ñi li nga yéene sa bopp ab ponk bu munta ñàkk la ci biir njulit gi ñu bëggee mu sax jullit bu ne lim yéene boppam ci yiw ak mucc tey ak ëllëg moom la war a yéene mbooleem jullit ñëpp bu dee moom sëriñ bi it yooyu mooy yim ci digleeg yim ci wax waaye anam gi mu ci taxawee moo gën a yaatu xam ngeen buñ demee ci mbindam dañuy gis mu naan xal bee yan wel xayra lil xalaayiqi li wajhi baaxin kaana li bilaaxi sama xol de aw yiw la ëmbal mboolem bindee fi suñu borom yépp te loolu borom mi leen bind rek moo tax ma di ma jàppee leen am na lu gën a yaatu sëriñ bi bind loo xam ne mi ngi ci majmoo bi sëñ Abdou Lahad dajale radiyallahu anhu wax nag lii kat ki ko bind mi ngi xamal képp ku ko gis ne jéggal na képp ku ko tooñ te it moom du ñaan yàlla ab tooñkat te mi ngi xamal mbooleem jullit ñi jébbalu ci moom ne mi ngi leen di ñaanal suñu borom jéggal leen di xamal jullit ñépp nag ne lim yéene taalibeem yi moom la yéene mbooleem ñi nga xam ne duñu ay taalibeem ليعلم كل من وقف على هذا الرسم أن كاتب هذه الورقة عفى عن كل من ظلمه وأنه لا يدعو على ظالم وأنه يستغفر لكل مؤمن تعلق به وأنه يحب لكل مؤمن لم يتعلق به ما يحب لمن تعلق به نميغي خبال نيبني طالبم ييفي موم جيبلو سي موم لم لين ييني موم لا ييني جوليت ييغا خامني جيبلو سي موم دوني طالبم كون بو ني واخ كو جيمال دغ دغ مبوكو غوغو sëriñ bi da caa dem ci dayoo bu kawe kawe kawe loolu moo taxoon nit ba buñ demee ci ay ñaanam dañ koy fekk mu daa ñaan suñu borom fu mu toll na julli ñi te na leen defal jàmm wasif li gayrihim sheytaana fi abadin wal takfihim kulla man yestu min al bashari maa ngi lay ñaan nga mussel leen ci seytaane musal leen ci bépp képp koo xam rek ab tooñkat la xafiisu sun ummata xayri mursali an illazina kafaru bi rusuli maa ngi lay ñaan yow suñ borom nga aar xeetu yonente bi sallallahu alayhi ci képp koo xam ne ab tooñkat la képp koo xam ne day weddi sa yonent yi daa leen daa leen ñaanal sax nag suñ borom defal leen dimbal aw si lu ummati nabii ahmada <clears throat> musalliyan alayhi fi man xumida nasran azizan yashmalul kibaara maa sigaari rudlahum mambaara maa ngi leen ñaan suñ borom xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga defal leen ndimbal ndimbal loo xam ne daleen di muur ñoom ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen bu mu ba kenn daa leen ñaanal sax bu nekkee ci ay jafe-jafe suñu borom xettali leen ci barkab yonent bi sallallahu alayhi wasallam shafa'atul muxtaari wajh za zaman li jumlatil ummati wahibal aman suñu borom yow mi nga xamni yaay maye jàmm ma nga lay ñaan nga xettali jullit ñi ci jamono ci met na ci ñoom jafe na ci ñoom ma nga lay ñaan nga xettali leen ci barkab yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wessuna sax di leen ñaanal buñ démé ci xasida rek mat la bu shifaay dañuy gis ne sëriñ bi day ñaanal jullit ñi ba yag mu melne bu ñu ko mënee waxee noonu ku taxaw taxawaayu avocat koo xam ne da leen di layal ci seen kanamu borom wa najjihim wa fihim wal tuf bihim wala tuaxizhum bi kusri zambihim maa ngi lay ñaan jullit ñi nga xetil leen ñeewante leen te yërëm leen maa ngi lay ñaan yow suñu borom ñii bu leen toppee seen bàkkaar yu bari yi bay di gudd la na ko gaañi kat xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne buñ defee naka sudut noonu buñ wàccee li nga leen digalit si ak ndoomu aadama rek mu leen ko yóbbee waaye seen xol yi boo ko xoolee yow rek yaa ne yow suñu borom ëllëg it yaakaaruñ fa kenn ku dul yow kon maa ngi lay ñaan nga jéggal leen te defal leen njëggal te yërëm leen ne ko yërmande ak njëggal googu ma leen di ñaanal nag boo leen ko joxee du wàññi dara ci sa nguur gi boo leen ko joxutit du yokk dara ci sa nguur gi ndax yow sa nguur gi dafa mat te ñoom ñii nag boo leen ko joxut seen dara du baax kon maa ngi lay ñaan nga jéggal leen te yërëm leen fala tuaxizhum bi ma la yanxusuk wala humu habil lazi yan yanfauk li nga xam ne boo leen ko joxee du la wàññi dara te boo leen ko joxut ñoom seen dara du baax maa ngi lay ñaan nga jox leen ko muy njëggal ak yërmande wax ko feneen ne ko suñu borom gaa ñii muy gaa yi waa kër yonent bi sallallahu alayhi gi amuñu kenn ku dul yow kon gestu leen te leen laysa li ummat laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan ak sartali jadwaaka ne ko gaa ñii de xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi amuñu kenn ku dul yow kon maa ngi lay ñaan nga geesu leen fonk gi sëriñ bi fonkon jullit ñi yéene leen aw yiw te daa ko jëfe bu wér feeñ na feneen ci anam yu bari xam ngeen li wax daaray ñu di waxtaan ak daaray kamil yu yaakaar naa matut fukki mètre ak juróom daaray kaamil mbooloo la moo xam ne bi yàgg na fi laata sëñ bi dem ci géej gi la woon waaye xëy na bi mu jugee ci la ko nos ñuy dañuy mat ñaar fukki nit ak bis bu set ñu jàng ñeenti kaamil loolu jamono yi Cheikhul Khadim la woon ba tey jii ji tàkkusaan jàng nañ ab kaamil fii ci jumaa ñuy toog danañ ko jàng fii am na njaareem am na daarul moxti am na daarul xudos ak yi ma xamut ñeenti kaamil yooyu bu ci ne sëriñ bi daa waxoon ñi koy jàng ne leen bii de leen ci fas lii da leen waxoon ne leen bi ñu jàng ginnaaw tàkkusaan nañ ci fasal jullit ñëpp suñu borom defal leen jàmm loolu rek moo tax ñu di ko jàng nga xam ne jamono Cheikhul Khadim ba tey ginnaaw tàkkusaan gu ne ñu jàngub kaamil ñaanal ci jullit ñi ñu am jàmm loolu naa bu ñuy wër ci feneen fu mu am bëriwut bëriwut fu mu am te loolu sëriñ bi daan ko def te ba fi mu ne nii loolu mi ngi wéy euh, loolu kon lu lu lu lu la bi sëriñ bi nekkee ci géej gi am na feneen fu mu feeñ ci yéen gi mu yéen a jullit ña gërëm leen am na ñaar ñu ñuy wax euh, sëriñ Lampagne Seck ak sëriñ euh, sëriñ ma Majoob Amar sëriñ Majoob Aram sëñ Fetto sëriñ bi nee na bi ma nekkee ci géej gi lii sëñ Mat Lamin Joob nettali na ko ne bi mu nekkee ci géej gi dafa toog bis ba yàgg rek ñu xamal ko ne ko kat ñaar ñooñu tubaab bi dañ leen a génn Sénégal yóbbu nañ leen ñi ngi leen yóbboon longo dañ leen a exilé sëñ bi nee na ma xam tubaab bi ak niñ doyewaar te bëgguma ñu nattoo leen dara rek loo xam ne dina laal dara ci seen pas-pas ci seen borom nee na àdduna lëndëm këris ci man ma am lu ma naqari am lu ma tiis ndax yërëm naa leen nee na fekk mi ma fekk may bind ak xasida ci saase ma soppi ni ma doon waxee fasal la ñaanal leen seen borom mu yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajiru shakka suñ borom yow mi nga xam ne yaa jéggale bàkkaar yi yaay tinki jéng yi maa ngi lay ñaan jullit ñi nga tinki leen te dimbali leen ba fegal leen lépp loo xam ne mën naa indi sikki sàkka ci pas-pas bi ñu am seen diggante ak yow loolu lu kawe kawe la yërmande jooju mu am ci ñoom te yërmande ji sax kañ lay gën a yéeme mooy boo bàyyee xel ne moom bi muy def lii jafe-jafe yi mu ne moo gën a metti fuuf yi ñee ne ndax moom moom képp la def na ay ay at ci àll bi dafa am ne nekk fa kenn ñii lu métti métti wéetuñu waaye fàtte na lim nekkoon moom ngir yërëm ñee ba tax mu leen di ñaanal xam ngeen sëñ Lampagne Seck ginnaaw bi bind na sëriñ bi ab di ko ndax nekkin wañ nekkee foofu sëñ bi am na bu ko lu mu ko tontu mi ngi ci majmuwa bi ku ci dem dina ko ci fekk waxtu moo xam ne mëneesoon na cee taxaw sax euh, waaye bokk na ci feeñ gi mu feeñ it ne tukkeem boobu sëriñ bi lim ci nekk lépp dara ñaan boromam ne ko lépp lu ma ci jëlee su ma ñibbee naa ko bokk ak jullit ñëpp اجعل رجوعي الى خومي سعادتنا ولتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا سوما نيبي لي ناي سونو تخي نون نيب مان بولم كوما فا بوكال نيك اك يودوت يوي لي كون بكون سرمدان وجعل مسيري يزا جوف الفرا للورا مثل المحارين جوف الفرا خم نين واخين عرب لا السيد كله في جوف الفرا موي لي نيوت ليب رك نكو سما توكي بي سي غاتال نكو سما توكي بي Mang ngi lay ñaan suñu borom nga sax nga nga nga yag nga sax ci dima dimbale ni nga ko baxo def waye sa bu ma ñibbee na ko def muy jawfal fara mooy lepp lo xamné les di la ci lu bax nang mako ma ci sama tukki bi waye nang ko def ngir kan ngir jullit ñima dekkal lil wara mbooleem ñafa nek ñep mislal maharini na tem ba melne lem mislal maharini lolu bawut ben julit bo xam xamna serigne da ko waxit naan ko sama tukki bi sa bu ma نانتي بغل مبولم جولي نيب وبشر زوي الاسلام تران باوبتي الى اخوتي والتقدي خبلها الاربع ماغي لي نيان سما نيب بي سا بما اغي ناي مبك سي مبولم جولي نيب امنا فنن فمكو واخ سخ نانكو اجانتو جوعي لدو يوري بشرى للمؤمنين بالبشير البشرى ماغي لي نيان سما نيب بي دال سا بما اغي رك ناي مبك سي مبولم جولي نيب xam ngeen loolu suñ borom def na ko suñ bashir wax na bi sëriñ bi ñibbisee bi accès dakar mbégte mi am motax gis ngeen Cheikh Saadu Abihi nga xam ne ci tarixal qaadiriya la bok bi serigne bi ñewé bindon na melna na kuy wax ci turu julli ñep ne ko ne serigne bi ma ngi ndokkel diine ji di l'islam nga xamne diine ju tumuranke la won dañ ko xojoon ba munta wax tay bi nga ñibise amna ndam sigina ba yëkk ci ay loxam di bàkku hani an li din al gharib allazi ghada yatiihu sururan minkum wa iftikhara ma ngi ndokkel diine ji nga xamne ne tumuranke woon na lol waye yow Cheikh Ahmadou Bamba tay bi nga ñibise ak sa ndam diini ji siggiwaat na yëkkatikuwaat na muy la sëriñ bi ñaanoon boromam ne ko lu ma ci jëlee rek naa ko bokk ak jullit ñëpp kon loolu it lu munta ñàkk ci mbokkoo kii la muy jullit bu ne nga di ko yéene aw yiw sëriñ bi jàngale na ci lu yaatu ñetteelu tomb bi ci munta ci mbokkoo gi mooy jëflante bu rafet bu ñu demee ci masaalikul naan sëriñ bi jàngale na ci lu baree bare bari ne jëflante bu rafet boobu nag daa am fu muy feeñ mooy danga leen fegal aw lor ko lépp loo ci man di len laabiire lu bax di len digël lu bax di len tere ab safan di len yërëm te jëflante ñom jëflante bu rafet wa kufa anhumul aza wa aatihim xuquqahum wasbir azan min nahwihim ba bay da jeex bay du gudd la xam ngeen waye buñ ci jëlé ñaar rek muy lu melni ne ak jëflante bu rafet rafetal xam ngeen ne sëriñ bi wax na ci ne laabire jullit ñi de te yàlla rek tax mo gën di jihad ak yéfari summa nasihatu li al bari خير من الجهاد في الكفار دي لا بي دجولي نتا يالا رك تخ مو اوبتو يابا مو گن صح دي جهاد اك يفري لا بي ري كوكو سيرن بي كان خمود لو ليم سي داف نون تول خامن دايره تول راه دجالنا اك تير بو خامن اوبنا نيت تيمري خت يو خامن سي اي ندنكان اك لا بي ري سيرن بي داف رك لا dana ci jox ñaari misal yo xamne damay tamu nak misal yi muy genn yoni mu baña don ño xamne ñing ci bir yoni ndax xeyna ñoo dinañ jégué ba mbop ku mel ne Lat Joor Joob nekkoon mm, jiite woon Kajoor nekkoon xat suñu Mor Anta Sali xam ngeen ak mujjam ni mu ñàkkoon a jubóog ñi mu nekkal suñu man Lamin nee na ay bis wala ñaari ay bis laata muy génn àdduna ñëw na ci sëñ bi seeti ko ñëw ñaanloo sëñ bi ne ko dafa bëgg mu ñaanal ko mujj gu rafet sëñ bi ne ko euh, wax ko wax ak wax ju gudd la waaye tënk bi rek mooy ne ko yii ngeen di xëccoo yàgg waa Kajoor soo ko bawoon te ñëw sóobu ci lii ma ne ma garanteel la ne la àdduna ak àllaaxira doo ci am benn jafe-jafe waaye xëy na bi ñu waxantee la jor xamal ko ne ko yëf yi àgg na ci moom foo xam ne dëpp dootu ko yomb sëñ bi nangul ko loolu daal ko jox barkeelu jox ko ay dàll ak mbubu bindal ko ay bayit ne ko bu mu génn kër gi te mokkalu ko bayit yaa nga tàmbalee ci yallaahu habli daiman imaani wa xaachi al xalbi madal azmaani man na juróom benn bayit la jor nekk ci kër gi ñu boole ko ñaari murit mu yendu fa laataa muy génn mu mokkal ko tëgg ci ñaari ay bis génn àdduna xam ngeen ku mel ne Samba Lawbe Samba Lawbe mii nekkoon ci Jolof yónnee woon na ci sëriñ bi ne ko daa bëgg sëriñ bi dénk ko waaye ndénkaan lam ko dénkit da ko delloo ci mbokku jullit gi rek ndénkaan lu gudd la ci biir ci la koy wax naan ko na nga bàyyi xel ci ne kat nguur gi nga yor tey ak doole ji mi ngi agsi ci say loxo ginnaaw bi ko dee fuqatee ci yeneen loxo wala ñeneen folliku ci ngi ci doog ko jot ne ko ñaari yoon yooyu nga ci jotee xamal ne faw ci noonu lay génnee ci say loxo faaw bis dina ñëw nga folliku wala bis ñëw. nga nga faatu mu dem ci yeneen loxo ne ko ginnaaw kon noonu la demee na ci liggéeyal yàlla te jëf ci lu baax ba bu ëllëgee mu mën laa jariñ sëriñ bi nu naka jekk noonu la ma si def képp ku muy laabiré lim lay laabiré mooy delloo dellu ci yàlla sax ci ndigali suñu boroom yi sàmm li nga xam ne moo ñu fi indi te bañu fi muy sàkk ngërëmu suñu borom kon loolu ñaari misaal la rek ci ndénkaan wala laabiré yi nga xam ne daana ko def moom Cheikhul Khadim radiyallahu bi it bu dee bu rafet bi Euh, sëriñ bi ñëpp la daan rafetal la daan jëflanteel ñi néew doole ñi am doole kilifa yi ñu dut kilifa waaye mboolem kilifa yi mu jamonoonteel dara rafetal jëmee ci ñoom ba ñu ëpp ci ñoom seere nañ ko wala ñëpp seere nañ ko sax buñ ci xoolee ku mel ne Xaadima Jaxate Kala nga xam ne waajuru sëriñ bi di Sëriñ Mor Anta Sali moom la doon woloranteel sëriñ bi jariñu na ci moom sax ci anamu xam-xam ci daa bind mu di ko jubbantil ay bayit ak yooyu sëriñ bi daal rafetal lu bari jëm ci moom xam ngeen am na ab tool sax bu boo xam ne sëriñ bi yabaloon na murid yi ñu dem fa bàyyili ko ko xasida ak murabbaw na xam ngeen ci loolu lañ ko lañ ko lañ ko defe woon am na fu muy tàgg sëriñ bi naan minni li ahmada bamba taariki naasi gayral ilaahi fa amsa sayidan naasi manjan ma mafarran mawilan wazaran mawan lahum fi xululil buusi wal baasi ne lii kat maa ngi ko jëmee ci ahmadou bamba mi nga xam ne war na ginnaaw lépp lu dul yàlla fàtte na nit ñi ba tax suñu boroom yëkkati ko mu féete kaw ñëpp ne moom kat di tudd njariñ yi sëñ bi am ci jullit ñi ne wéeruwaay la làquwaay la muccukaay la dellukaay la ci jullit ñi saa bu ñu amee yenn jafe-jafe loolu di fësal bu baax njariñ li nga xam ne sëriñ bi amoon na ko ci jullit ñëpp ndax ki koy seereel lii bokkut ci biir murid yi xam ngeen ku mel ne Sidi Haaji Malik radiyallahu anhu ca Tiwaawoon moom mook sëriñ bi am nañu ak mbokk ci maam maaram ñoo bokk maam waaye seen diggante noonu la meloon sëriñ Bachirou nee na daan nañ bindante lu bari ay bataaxal mook sëriñ bi nee na sëñ bi seeti won na malik ca njarne ne bu sëñ bi bam fay jóge ci njëlbeen ga la lool ne bi mu fay jóge alaaj malik da war gunge ko lu sore sore sore ne daan nañ joxante lu bari sëñ ba si tudd ci sax ne fàttaliku naa benn téere bu alaaj malik yonne won sëñ bi boole ci ñaari bayt hadiyatun mujibu hajtilaabu mahabbatin ya ayyuha alxubaabu adaama rab adama rabbuna lana xabla alwisaal wa kaffana sharra allazi aada wasaal alaj malik bind ci ne radiallahu anhu ne sëñ bi lolou kat malik la ko yónnee muy addi ju jóge ci man li ma ci sàkku rek moy lu gën degeural ciofel gi am suñ diggante mak yow ne ko ma ngi ñaan suñ borom buum gi buumuk ciofel gi am suñ diggante mu degeural ko tem doon lo xamne day wéy te musul ñu ci kep ko xamne ak yàq ab yaq kat la wala ab non la nee na sëriñ bi war ko ñaari bayt ne ko jazaakumu khayral jazal wahhab wa fi safal widaadi la tartabu fa kayfa laa wal mustafa al mujaabu imaamuna wal xitla laa nahaabu ne ko yàlla na la suñu borom fay yiw bari yow sama mbokk mii di sama xarit ne ko nag suñu diggante man ak yow neexaay bi ak ratax gi bu ci am mukk sikki sàkk ci ne loolu day wéy te dara du ko yàq ne noonu rek la mën a deme it ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu kilifa ci moom la ñuy roy kon jëruñ ñuy xalaat di tiit benn yàqkat bu mën a yàq suñu diggante ma ak yow diggante boobu noonu la meloon sëñ Basiru nee na benn xew-xew daawul am ci benn ci ñaari njaboot yi lu dul ba ca des dana yónnee ndaw yónnee ay bataaxal seen diggante noonu lañ ko daan dundale ku mel ne Cheikh Abdoulaye Niass mi nga xam ne mooy waajuru mooy moo njaboote waa Niassène euh, noonu la meloon ak sëñ bi gis ngeen sax téere boobu ko sëriñ bi bi yónnee woon jox ko ko addiyee muy Tafsirul Jalalayn ba mu digal ab taawam Cheikh Mouhamadul Khalifa mu def ay bay tagg ci sëriñ bi mooy yooyu mu koy wax ci biir naan ko huwal jalalaani tafsiran liman sibikum misbaha ilmin kadaw is subhi lammaahi xasida bu gudd la gu muy tàgg bi mom Cheikh mohammed Khalifa di dom ci Cheikh Abdoulaye Niass di woné rek euh sen digënté ratax go xamné amon na fi donte bokku ñu ay tariixa xam ngeen ku melné Cheikh mohammed Amin Sidi Khoya bokku ci at tarixa al khadiriya non la meloon ak serigne bi donte xarit suñu moroon seetlu woon waaye noonu la taqoo won ak serigne bi bata yi ko serigne bi bind amna ci yo xamné da koy wax nan ko muhibbuka fillahi lillah ahmad ibn muhammad al makki ki de ki lako ko moy sa mbokk mi nga xamné dalaa bëgg te yàlla rek tax am na feneen fu mu koy wax sax naan ko lazilna mutahabbayni fi zaati rabbil alamin yàlla buñ buñ buñ dañ ci di bëggante te yàlla rek tax moom mook sëñ bi amoon nañ lool ko lëre xam ngeen moom mii rakkam sëriñ bi tuddee na ko kenn ci ak njabootam mu soxna Mariama Kunta soxna Mariama Kunta mi bokk ak Cheikh Mouhamadul Fadil kiñ ko tuddee rakk la ci sëñ Siidi Xooya mi waaw ku jege woon sëriñ bi la wala réew moom woon ak yudu yooyu ci yoo xam ne sëriñ bi def na ko buñ génnee réew mi it noonu la meloon ak ñoom buñ demee fee mursani ña fa sëñ bi amoon ak ñoom kóllëre te bokkuñu tariixa lislaam rek lañ bokk kenn xamu nu mu toll ku mel ne Cheikh Mouhamad bin Beddi mënees na ko ci tudd nga xam ne moom euh, kilifa la woon foofa bokk ci at tariixa tijaaniya bokk ci at tariixa tijaaniya moom jaxasoo woon ak sëriñ bi lool xam ngeen sax gis ngeen téere boobu mu joxoon sëñ Ibra Joor Amar al mawaahibu laduniya fekk sëriñ bi da ko doon jëndloo mu dëpp mu dem ba sonn amu ko wër ko ba sonn amu ko bi mu dëppee jaar kër Cheikh ma benn bët di ne ne naa ko foo demee mu ne ko ndar laa jógee sëñ bee ma yónni woon wax mu demee nee na ne ko téere bi laa doon waaye amuma ko saa si ma benn bët di jóg dem ci téereem génne ko jox ko ne ko joxal ma ko sëñ bi ne ko àddiya laa ko jox euh, daan nañ bindante lu bari ay lettre mook bi moom mi xam ngeen yóbbante woon na sëñ Mamadou Lamine Jóob Dagana nee na Cheikh ma bët di yónnee woon na ci bi ne na ko nuyul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu nee na ñu teg ci biir sëñ bi ne ko Cheikh Ahmad Tijaani yéen salaam ak Cheikh Ahmad Tijaani jot nañ nuyoo bi delloo nañ ko nuyoo ñu ngi koy fay doomam nettali na ne mu Cheikh Mahamadou Amin ne Cheikh Ahmad bin Badi ba ni mu fiy jógee dañut ci saabu xel mi demee ci loolu mu mu mu mu yéemu yéemu ngir loolu ni mu ko yéemee te gis nga bokkuñu sax tariixa waaye rafetal gi gi xam ci sëriñ bi ak dëggu gi wér gi ak daraja ju kawe ji moo tax mu wóolu koo def loo loolu xam ngeen bimu genné aduna nenañ génnee sëñ bi dafa xëy fajar suba tel wo ñen ci njabot gi jox leenu qasida ne leen Cheikh Ahmad bin Badi génn aduna tek ci ay wax yu doy war ken ken jale ci ken tàgge ci ko de ne leen dem leen fekk ji denc ba Cheikh Mouhamadul Amine moomu nettali na ne defuñ lu ci guddigi la fi Cheikh Ahmad bin Badi joge dañoo xëy rek ndawi sëñ bi aksi yeggaluguñ ken faatu gi sax ndawi sëñ bi aksi indaale qasida gi muy qasida gogu tambule ci la khadija ruhul qudsi wa huwa mufarriju بجند عظيم حين أحمد يخرج لأحمد عند الله ما كان يرتجي له بان خير بابه ليس يرتجو bam jeex xasida gu gudd la koo xam ne da cay wax may yoo xam ne Cheikh Ahmad bin Badi am na ko ak daraja ju kawe joo xam ne am na ko loolu lépp waa kër Cheikh Sidé Baba xaju fi bu ñu ko doon waxtaanee seen diggante ak sëñ bi ni mu rafetee woon ni ba ni sëñ bi ñibbi seen njaareem di rafetal ci ñoom di leen jox ay may yu bare bare bare bari di rafetal seen diggante bi ratax doon lu lu am solo kon yooyu yëpp di wane Euh, tomb bi it solo goo xam ne am na ko muy rafetal diggante biir jullit ñi kon loolu lu munta ñàkk la ci mbokkoo gi bu ñu bëggee mu sax ñeenteel bi mooy at taawunu alal birri wa taqwa mooy ñuy dimbalante ci lépp loo xam ne lu baax la loolu it lu munta ñàkk ci biir mbokkoo gi la euh, xam ngeen sëriñ baa ngi wax naan wa xaalitil muumina bi taawuni amma alal aza fala tuawini jullit bu ne na ngay jaxasoog moom ci di dimbalante ak moom ci lu yàlla gërëm waaye lépp loo xam ne naka su dul noonu la nag bu ci dimbalante kenn noonu ma ko laa waxee moom seriñ bi noonu la ko laa def laataa ma ko laa def sax daan na ñaan suñu borom ne ko nag ma def may ndimbal ci jullit ñëpp jullit ñëpp naa nekk ndimbal ci ñoom wa bi yanfa dunya wa uxra iyaali munxizan kulla saailin wa madini maa ngi lay ñaan nga jariñ sama ñoñ ci man àdduna ak àllaaxira nag ma def ma loon koo xam ne damay xet dangay xettilee ci man képp kuy bor sonal wala képp ku bëri ay jafe-jafe àdduna mun xisan kulla saailin wa madini wal tubashir bi yal yataama dawaama ansihim bi abaahum kulla xiini maa ngi lay ñaan ba ci jirim yi sax na nga def ci man na leen bëggal ci man naa doon mbég ci ñoom naa doon dimbal ci ñoom ba sax naqar ak tiis yëgoon wi ñuy yëg bu ñàkkee seen waajur na leen ko fàtteloo ci man ansihim bi abaahum kulla xiini bi mu ko ñaanee boromam mi defal na ko noonu ndax Euh, lim fi nekk lépp fu jullit ñi mas a am ay jafe-jafe seen xel day dem ci moom xam ngeen pest euh, peste boobu fi amoon bu méttee méttee métti boo xam ne jaaxaloon na ñëpp waa Mauritanie yónnee woon nañ ci sëriñ bi Cheikh Sidiya Baba defu xasida gu gudd zaro zaron xawaafili baabuhu masdudu illa bi ndaqdin kulluhu man xuudu xasida gu gudd yónnee ko sëriñ bi euh, ñu ñëw ñenn ci njabootam bokk ci ñu fekk sëriñ bi njaarim boobu daal yëf yi métti na Mauritanie nit ñi sonn nañ mooy peste bu métti boo fi amoon rek biñ ñëwee nee nañ sëñ bi nañ fi jëfee sax dafa yéemoon lool waa kër gi ndax sëñ bi gaalu xaalis lañ jox ak gaal ba mu fees dell ak xaalis nee leen bu ngeen demee ngeen jox ko Cheikh Sidiya ne ko jamono métti na waaye nag na ko séddale waa réew ma rek ñu xool nuñ ci dimbali ko gaal googu noonu ba fi mu ne nii nee nañ mi ngi ci mi ngi ci loxo yi waa kër ba léegi gaal gi ni ñu tee sëñ bi ko diwoon ba mu fees dell xaalis loolu di wane ne naka jekk sëñ bi ndimbal li muy li muy taxawu jullit ñi Sabu-sabu ko laaje te bobu mi ngi fi senegal ñom ñanga ci Mauritanie te ñi yonne di ko wax sax ci tariikhal khadiri lañ bok waye teewut sàmm julit gi rek ak gem ne julit bu ne da wara a mbokum julitam motax mu def na lool ak taxaway yu am solo yii sëñ Muntaxa am fan yi xam ngeen ci tawat ji bim fi fi tok legi ci taxaway yu am solo yim ci am ci genn alal ju bari def ci yëkkati nyepu wax ne ñepp luñ man ci dimbalé nañ ko def dolli ci it wax na ñëpp nañu tënku ci li nga xam ne docteur yi ñu ngi koy wax ba pare jiitu ci moom it ñëpp gis nañ ko mu ñëw ci jumaa ji gel yi ñuy utiliser mu jël ko def ci loxoom loolu di ak bind bu am solo boo xam ne bi mu ko defee kenn amatul sikki sàkka ci naan tawat ji am na ak amul bunt boobu moom suñ suñu muntaxaa moo ko tëjal nit ñi kon taxawaay yu am solo yii nga xam ne jamono sëñ Modou Moustapha ba fi mu ne nii ku fi ma sa jaar ci njabootu sëriñ bi la tolloog sa jamono rek def nga ca euh, lu kawe njot loolu it euh, dañ ko donnoo rek ci sëriñ bi xam ngeen sëñ bi noonu la mas a nekk naka jekk ab delluwaay ci jullit ñëpp ñu amee jafe-jafe gis ngeen peste boobu fi amoon it jamono ji nga xam ne mi ngi jaareem te bayit sëñ bay jaxate yoo xam ngeen tasaaroo na lool euh, yónnee ko bayit sëñ bi dara mu ñëwaat euh, bayit yooyu tàmbule ci ndegam gaaya daa bay laxal kaañ ku xam gaaya bay fu ñu lekk kon bayit gudd la bam naan bam naan ko euh, ne yow do ne yow doomi nit dootu mel nii nga mel te gëm naa ne wax ji sore naa ki fen waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jeex tinul ñëpp yow boo tinoo yàlla tin bu ab sàmm ne cell la jur gépp jeex bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon di wéy nee nañ day wax ba yàgg sëñ fekk daa bàyyi ba sëñ bi julli ba génn rek mu irtijaal bay di di ko jàng waaye day wax yàgg sëñ bi yëkkati loxoom bu tedd bi ne ko Babacar doy na sëñ bay na teg waaye loola moom foofa la yam ci doy na am jooja ginnaaw bi woon na leen ab jotaay nag xamal leen ne leen dafa am yoo xam ne suñu borom moo tax mu nekk suñu borom faw ñu nangu na ci loxoom la ne te mooy def ak dindi xam ngeen ñenn ci waa daaray kaamil jiwoon ci biir këram pest bi laaloon na leen ba yëfi metti ci nit ñi jaaxal leen suñ bi romb leen ci ëtt bi ñu toog mu ne leen da ngeen a foog ne xejjub yàlla mooy koo xam ne lu ko neex yàlla def ne leen xejjub yàlla dëgg mooy koo xam ne lu yàlla def mu neex ko ne leen te moom foofu la ne ñoom ñëpp delloo si leen ci tawxiid ñu xam ne yëf yi ci loxol suñ borom la ne mu baleen fa dugg ci biir ñu teg ci diir mu génnaat ne leen suñ borom mi ko fi indi woon xamal na ma ne ma jëlee na ko fi yooyu li ci sëñ bi def lu dul jeex la ci xettali jullit ñi ci anam gu ñuy teg bët ak anam goo xam ne dees ko teg bët kon loolu euh, lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel la xam ngeen sëriñ bi daana jëmb lañu gis ngeen yu Seex Yusufu Nabahaani nekkoon fële ci Liban moom mës a gis ak sëriñ bi sax ci atum bi sëñ bi di yóbbu ñenn ci taalibe mu tanim yooyu xaaj yoon yooyu ñu aji màkka yóbbu yónnee woon na ko xaalis alal ju bari ndeke booba sëñ bi dafa yëg ne Cheikh Cheikh Youssouf Nabaani daan na ci ay jafe-jafe mu yónnee ko xaalis bu bari moo tax ba mu àggee mu bëgg ca lool ba yónnee sëriñ bi sax ay bayit bayit yooyu xam ngeen ci xasida gu gudd la ci bayit ci la nekk innam ra'an faatahul muxtaaru min mudari wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuuna képp koo xam ne kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëcc na ko ligéyam kat bi ligéy katam bi ne ci ndiarém rëcc ko na xamné koko de lu rëy rëcc nako nax nañ ko ak judud yoy yo xamné ne sëñ bi def nako ci da ko dimbalee julit ñi xam ngeen wa Madinal Munawwara bi ñamé jafe-jafe ñëwon nañ ci sëriñ bi ngir mu tinu len ñaanal len seen borom mu jox len xasida gogo gu gudd googu ahlal madinati minni sarmadan lakum azka salaamin yutibul xalba wal jasada banaan leen laziltumu dahra fi fi safin wa tawsiatin yakfikumullahu lil jannati man adada من عندا فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم حوله فلتحملوا السمدا tënkal leen ne leen daal maa ngi leen di ñaanal maa ngi leen di defal maa ngi leen di defal maa ngi leen di ñaanal xéewal na ngeen sant seen borom ci dëkk gi ngeen dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko sant ci loolu te na ngeen rafet jot te yàlla bu leen dañ ci di am jàmm boobu ay jafe-jafe yu métti lañ nekkoon ñu jóge ca Madina Munawwar ñëw fii xam ngeen atum 1926 bi ñuy bëgg a dévaluer xaalis bii nga xamne ay jafe-jafe la naron doon buñ ko dévaluer on dana met ci France waye ci wa Sénégal gi lay gëna métti mom ndax boba xaliss bi la utiliser te français lañ yelif te sen doole damay wut non biñ ñëwee wax ko sëriñ bi bam xam loolu dafa jëkëti 500000 francs joxe ci jamono jooju dimbulé ko ngir xaliss bi mëna a jugaat ba wa réew mi mom jullit ñeeg ñi fi ne jafe-jafe yoy duñ ko yek loolu it lu ama am solo lo xamne mat nay fessel bañ xamne sëriñ bi naka jek bët bobu la mas di xol bindé fi moy yërmande suñ borom ci yaatu ci juromel bi nga xamne mo ci muju ci ponk moy nak ñuy watandiku ñuy jàpp mboko gi te watandiku lépp lo xamne ne ak boddi konte la wala ak par parparloo ci biir julit ci lolu serigne bi da ko daan tere ñep motax da daan tere talibé mi ne len kep ko xamne mi ngi wax la ilaha illallah na ngeen fexe bu len ko nono wala tu'adu man raaytum fahu yukhriju la ilaha illallah kep ko ngeen gis moy wax la ilaha illallah na ngeen ko jappé mbok te bu len ko nono moom it daa ñaanal jullit ñëpp xéewal yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa haadiyan radaa yow mi nga xam ne yaay borom nguur gu kawe gi yow mi nga xam ne weesu nga fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mbindeef yëpp muy rahmaani ak rahim yërëm leen fii ci àdduna ñoom ñëpp yërëm jullit ñi bu ëllëgee ci àllaaxira xam ngeen loolu mi ngi ci xasid ak rahmaani rahim di rabbi bi maa yasraxu buñ dikkee ci biir tere parparloo googu it xam ngeen ci biir lislaam dafa am ay ngiri fiq ngirum imam malik imam shafii imam hanafi imam hanbali serigne bi ngir yoy faaw nga tan ci benn serigne bi ngirum imam malik la tànnoon ci lu leer ba pare ne wa keureum geep ma ngi len di digal ngeen sax ci ngirum imam malik amar fa amartukum jamian bil al maliki ak alaykum bil maliki fa innaha mutaharatun munawwara da ngeen ci jàpp bu wér ci ngirum imam malik waye lolou lépp teewut da saxal ne ñent ngir yi ñu fi xam yep yu wér la a'immati fil fiqh malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali samay njiit ci fiq mooy ñeent ñi imam malik imam shafii imam xanafi imam xanbali ndéggin woowu nag bu ko jullit ñëpp amoon ci jamono ji lu bari dina woyof fi ne bari na jafe-jafe yu am ak réeroo yu am ci biir diine ji yoo xam ne yii rek moo ko indi maanaam wutee ay ay ay ay ay delluwaay yu am ci diine ji ba ku ne ñenn ñi xaabaabal ba jàpp ne ku nekkul ci li nga nekk wérut te loolu nag bokkut ak li ñu jàngal ci diine ñun ñëpp mën nañoo bokk nekk ci dëgg loolu sëriñ bi daanako jàngale bu ñu ñëwee ci tarixa yi wute tarixa sëriñ bi lu leer la ci jàngale woon ci ne parparloo waru cee am ne wird yépp ñu ngi jëmee murit bi ca suñ borom saa bu ci saxee ci anam gi mu ci war a saxe daal di xool tarixa yi fi gënoon a tasaaroo ci réew mi mu tudd ñaar yi fi gën a siiw mu tarixa tijaaniya ak tarixa xaadiriya ne moo xam da ngaa wax ci tarixa xaadiriya wala tarixa tijaaniya wala beneen tarixa bu dul yooyu wird yëpp mu ngi jóge ci suñu borom te bu ci taalibe bi jàpp ci lu wér dana ko àggale ci suñu borom kon loolu may wane ne ñun ñëpp même buñ bokkut ay tarixe ñi ngi ci yoon wi déggin woowu nag moo war a am ci biir jullit ñëpp suñu bi wax na ko ci masaalikul jinaan fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxida sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad al tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi ñoom ñëpp ci lu wér lañ ne sëriñ sëpp ci lañ ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila taa'ati rabbil arshi xaysuma jala bil istiqaamati fala tasxat ahad minhum wala tunkir alayhimu abad na ñoom ñëpp kat ñoo bokk lu ñu woote mooy tege ci njub jëmin nit ñi ci suñu borom kon bu ci xeeb kenn bu ci wedd kenn ku ci kuy sëriñ jàpp ko te sax ci lim la digal te keneen ku ne nga bàyyee ko akub sëriñam sëriñ bi loolu la digal waa këram buñ ko defee mooy mooy lim leen digal te it yaakaar naa ne murid yëpp ci loolu war a nekk. bu dee mag ñi mu fekkoon ci biir réew mi it ñu daa xeexal lislaam sëriñ bi dafa ñëw nangul leen ku mel ne Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu seere yu rafet la ko daan seereel xam ngeen ci masaalikoo jinaan jëm taalife ci mbàkke sëñ mbàkke bi so nee na sëñ bi nee na ko li tax mu daa ko taalifee foofu mooy Cheikh Omar Fouti fa la dajale woon mag ñi ca garab googa ne la ne ko it euh, bokk na ci yi tax mu gën a fonk dëkk boobu mooy Cheikh Omar Fouti ñëwoon na fa ba tudd ak ñëwam moom sëriñ bi laataa sëñ bi gane àdduna ne leen am na ku fi bëgg a ñëw kuy bëgg gane àdduna ci koo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay lay tibbe te moom ñeenti koñ yépp daañu tibb see ci moom daañu jëriñoo si moom gis ngeen ci masa ci jawharu nafis fi ko sëñ bi tudd wa kaana sha'nuhu ka sha wa kaana sha'nuhu xawli man bi tuqaa wal ilmi qad ta'azzara bi nga xam ne ragal yàlla ak xam la feese woon dell wax nañ ne sax sëñ bi ca wër gu njëkk ga laataa muy sos yoon demoon na ci kër sëñ Maxtaar Penda si mu jox ko téere rimaax rimaax xam ngeen téere bu Cheikh Omar Foutiyou bind la rimaaxu rimaaxu xisbir rahim fii nuxuuri xisbir rajim nee nañ sëñ bi bind ca jàng ko nag bind ca fegg wa man man sarrahu nayla asrarin isa nazara fala yufaariq rimaaxa cheikhina omara wax ne képp ku bëgg a jariñ wér na na na taqoog téereb Cheikh Omar Foutiyou bi ak yudut yooyu yoo xam ne day wane sëriñ bi nim daa teree ak parparloo ci biir diina ji daa wax ne fépp fu ngeen dégg nit ku baax bu ngeen ko mënee ziyaare na ngeen ko ziyaare bu ngeen ko mënee liggéeyal na ngeen ko liggéeyal wazur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimuhumu lillahi jalla kulla xiin jéggi na foofu sax moom sëñ bi waxtaali bi yëpp ne leen fépp fu ngeen fekk ak ñaan wala wird woo xam ne ci nit ku baax la jóge bu ngeen ko mënee jëfandikoo digal naa leen ngeen jëfandikoo ko amma daawaatu amma ahzaabul aqtaabi wa daawaatu saalihin fa azintu lakum jamian fi l amali bi kulli ma tayassara lakum minha haysu wajadtumuhu ñaan yii di jóge ci nit ñu baax ñi fépp fu ngeen ko fekk may naa leen ngeen jëfee ko fu ngeen ko mën a fekk lu ngeen ca man na ngeen na ngeen ko jël loolu ku xam ku xam xam ne loolu jafe na ñu gis sëriñ bu koy wax ay taalibeem te loolu lépp sëriñ bi sàmm gum sàmm mbokk ak lislaam gi moo tax mu di ko mu di ko wax waaye euh, bu ñu ñëwee ci sëñ Bachir it mi ngi ñuy xamal ne kër sëriñ bi ab daj ak carrefour la woon wala fu ñëpp daa dajal maanaam ñi am tarixaak ñi amul tarixaak ñi bokk ci xaadir yaak chazili yaak tijaan yaak ñëpp la fa daan daj sëñ Bachir da ciy jékki ba waxtu lu lu mu ne fàttaliku naa ba tàyyi suñ bokk tijaan yi dëkk Sénégal ñëw fa sëñ bi lalal leen ne nañ leen may ñu wasifa ne fàttaliku naa ba tàyyi tijaan yi suñ bokk tijaan yi di defee seen wasifa yi ci biir kër sëriñ bi loolu mi ngi ci mënoon baax xadim di wane lool giseen wu kawe wu sëriñ bi am ci biir diine lislaam yi moom mi yorub tarixaam yori taalibeem ak lépp di am yeneen di leen xajoo ci biiram ñuy ñuy ñuy wasifa ci seen biir kër loolu lu mat a delloosi la te lu mat a lu mat a royee sëriñ bi la ah. kon juróom yooyu yaakaar naa mën nañu tenk ndax wax waxtu mi ngi sori juróom yooyu mooy yi nga xam ne yu yu munta ñàkk la ci biir ci biir mbokkoo googu maanaam mbokkoo gi bu doon am mbaar mën nañu juróom yooyu ay jën la yu koy téye mooy bëgg te yàlla tax yéene nit ku ne lu baax jullit bu ne nga yéene ko lu baax jëflante bu rafet di dimbalante ci lépp lu dagan ak wattandiku lépp loo xam ne par par loola wala ak boddikonte ci biir diini ji beneen tomb bi ci topp mooy yoo xam ne nag bu fekkoon mbokkoo gi am mbaar la mën nañ ne ñoom ay ay max lañ ay max ay max yoo xam ne mën nañoo yàq jën yi bi ci njëkk mooy di wuññi sa awra yi mbokkum jullit loolu lislaam da koo tere sëriñ bi tere terewaat ko bu baax wax ne am na fu muy di wax ne képp ci yéen ku gis ay bi kenn ci moroomam na fas na fas yéene ci xolam ne lii de ba àddunay tukki du feeñee ci man mukk man raa minkum fi aqihi ayban fal yanwi an laa yazhara zalika al aybu bi sababihi awdu na fexe ba na fas ci xolam ne jiirug dundam lii du feeñee ci moom loolu nag lu mat a bàyyi xel la surtout jamono ji ñu toll ak réseaux sociaux ak yi bëri na lool yu ñuy tasaare yoo xam ne ay mbir la yoo xam ne day laal ci dund nit ñi di leen indil ay jafe-jafe loolu bu ñu bu ñu bu ñu delloosee li ñu sëriñ bi digal ci mbokk jullit gi li nga xam ne da koy bañ muy wuññi ay bi moroom ay bi sa moroom jullit daañu ko wattandi bu baax a baax ñàkk yërmande ci jullit ñi it loolu baaxut ci biir gi sëriñ bi maa ngi lay di maa ngi leen di digal na ngeen sax ci di jullit ñëpp ngeen yërëm leen di leen xool bëtub yërmande ba ci sax ñi nga xam ne dañoo jàdd yoon daan ne kat waalam bi anna shafaqata ala al-aasi afdalu min ad-du'aa alayhi ki nga xam ne dafa jàdd yoon suñ borom yërëm ko moo gën di ko ñaan yàlla kon képp ku ngeen gis ba ci jullit boo xam ne daa xaw a sàggan sax na ngeen ko xool bëtub yërmande te lu ngeen mën ci laabiire ko ngeen def ko lépp loo xam ne it soxor la ak kiñaan loolu ci yàq mbokk yi la bokk soxor ak kiñaan wala taxsud ahadan min al muminin fa inna al xasuuda laa yasuud bul iñaane kenn ci jullit ñi ndax ku iñaan kat du am mukk la mbëgg du féete kenn kaw ñeenteel bi ci yi nga xam ne day yàq mbokk gi mooy xeeb ab jullit rawatina di ko xeeb ngir situation bu mu am maanaam nit ki ak néew dooleem wala ñàkk xaalisam wala ñàkk alalam wërta tax ñu xeeb benn jullit buñ démé ci masalikul jinan sëñ baa ñu jàngal ne man nga romb nit mu don ko xeebu ci bëtt fekk ku bëri dara jala ci señ borom safan bi dina am nit ko xamné nit ñi yëkëti nañ ko lool fekk démé wu non ci señ borom nak fa rubba zi taxaddudin khadim tala nuran wa sirran min ilahin xad ala wa rubba abdin xad ala inda al uyun ka annahu xudbu raxa xaysu yabin wasituhu intashara fil buldani wa huwa kal khirdi ladar rahmani nekat man nga gis ko xamne nit ñi dañu ko xeb lol ngir ak ñàkkam wala yoy yow bu ko xeb julit ñepp kon rafetal jot ci ñom te xamne ne li nit li julit di gëne morom du lo xamne ne ne jak mu feñ ci mbubam waye ci biram lay ne lol it yu maddi di sam la ci bir mbokk gi ñu nek di xeebaate it serign bi da koy bañ gis ngeen bi mi jolof dem jaare wax nañ ne amna kum dajal koko ne koko dafa dajal ñom xam ngeen sëñ bi bi muy jógee ceen ceen jolof jaar na ni jaar kàddu ba loo def ni jaar ci sëñ daam Abdourahman Lo doog a wéy dem jaareem euh, waa ji dajeeg ñoom nuyu leen ne leen ndax amut ku ngeen fi dajal léegi ku gàtt te ñuul déedéet dañ leen ndax amut ku ngeen fi dajal léegi ci yoon wi am kenn ci ñi àndoon ak sëñ bi ku nekkoon ndax dafa gàtt te ñuul waa ji nag waaw nee na sëñ bi daal di fett su kooka ci saas ne ko nii ngeen di melalee seen mbokkum jullit ne ko dëppal nga waaxu ji ba dab ko ba gis ko jéggalu ko baabul ma topp dëppal nga waaxu ba dab ki nga wax loolu nga baalu ko àq baa bul ma topp njaaram gi ma jëm kon jullit ñi war nañuy wattandiku ci seen biir di xeebaate ndax loolu bokk ci li ñu sëriñ bi digal ñetteelu tomb bi te mooy bi ci mujj ci waxtaan wi ndax mel na ne waxtu waa ngi sori suti mooy nag bi sëriñ bi doxee nii ci mbokkoo gi jàngale ci yii mu ci jàngale yenn njeexit la am ci moom sëriñ bi ak ci njaboot gi nga xam ne moom ñoom la yar bi ci njëkk mooy taxawaay bi mu amoon moo tax ba moom sëriñ bi mu mujjoon nekk delluwaay ci jullit ñëpp saa su ne bépp jafe-jafe bu ñu am ci àdduna seen xel ci ñuy njëkk a dem sëriñ bi ci la bokk xam ngeen bi mu nekkee mursani mbirum maaya mooy suñu borom ni mu ànd ak jullit ñi inna allah maa saabiri nag yooyu noonu maa jooju noonu nu mu demee indi woon na ay coow foofa ba nee nañ sax ay bakkan rasul na ci ci diggante ay tarixa yu wuute ñu dellu ci sëriñ bi mu wax leen ci lu leer loo xam ne tënk ba rek mooy ne ku xamut na suñ borom nekk ca arasam ja ni mu ànd ak nit ñi du mën a dugg ci sa xel wax leen nag ñoom fañ ca war a yam jamono jooju lu métti metti mbir ma moom rek la woon am na yu gën a xóot sax yoo xam ne waxtu weekutoon may nekkoon des na ci mën a gën a yaatal waaye bokk na ci it jeexit yi mu am mooy jullit ñi saa bu ñu amoon ay jafe-jafe daañu daa dañ daan dellu ci moom euh, xam ngeen sëñ Lambañ Seck moom ma tuddoon sànq mook sëñ ma job aram nekkee. gamoo te am ay jafe-jafe bind nañ ko lettre gis naa lettre bi lettre bi ñu ko bind di ko wax ne ko tubaab yi ñu indi fii dañoo tuumaal nangam ak nangam ak nangam euh, bari ci moom téereb alxuraan ak yu leen bindal ci taalif ak ay laaji fiq yu ñu ko doon laaj sëriñ bi tontu leen ci loolu. kon loolu it xam gi xam ci moom yërmande ji mu am ci jullit ñi moo leen yóbbee ba fu fuñ jàqee seen xel dem ci moom xam ngeen gaboo gongo bi mu fa nekkee am na ku ñuy wax Samori Touré nga xam ne Guinée la jóge xamante wut ak sëriñ bi te bi mu nekkee foofu yónnee woon na ci sëriñ mi ngi woon dëkk bu ñuy wax njole sëriñ bi nekk fi ñuy wax làmbar na soree wuñu woon lool yónnee woon na ci sëriñ bi di ci moom ne ko dafa bëgg bu fi jógee sëriñ bi taxawu ko ba bi mu faatoo moom Samori Touré sëriñ bee ko jullee te foofu lañ xamante te ma nga fa woon na ko moo ne ay doomam yooyu ña nga fa waaye xam xam sëriñ bi mbaax gi ak njullite gi moo tax muy sàkku ci moom loolu xam ngeen sëriñ bi bi mu nekkee gànnaar jullit ñi amoon nañu ay jafe-jafe lool ci wàllu sécurité waaye biñ jàqee dañoo dem ci moom wax koo ko ci la leen jox xasiid ak wakaana xaqan mu wakaana xaqan ji ñu xam wax lañ ci wax yu yéeme yéeme yoo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko loolu di gën a fësal rek delluwaay bi nga xam ne doonoon na ko ci mbooleem jullit ñëpp waxoon naa sànq waa Mauritanie seen peste boobu bi mu leen sonalee te seex si Sidé yónnee ci sëriñ bi naka noonu bi mu sonalee fii jullit ñi te ñëpp jàq ci sëñ bay jaxate dem bàyyi ba mu julli ba noppi mu wax ak moom ci turu turu turu jullit ñëpp ne ko nag waxal ci yëf yi ñaanal sa borom mu mu teggil ñu ko ndax metti na ginnaaw bi la ko wax ne ko ndaw la sax ñëwoon na Babacar waaye damaa newoon ci leneen lu ma leen doon fàggul loo xam ne moo gën moo solo ci yéen te mooy dama leen doon fàggul tawxiid seen diggante seen borom mooy ñu xam ne yii suñu borom moo koy tegee moo koy teggee saa bu ko tegee mu tege ñëpp bu ko tegee mu tegg ko ñëpp loolu it yu mat di bàyyi xel la sëriñ bi naka jekk ci loolu la daan ma si nekk lu ma sa am lu ne da cay jàngale diine waa Madina a ñëw googu ñëwoon ci moom bi ñu amee ay jafe-jafe donte bokkuñu ci tarixa bu ñu nekk dara loolu daa fësal lool taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci biir lislaam xaalis boobu mu dimbalee woon euh, xaalisu réew mi bi ñu ko naree dévaluer lépp ngir dimbalee ko askan wi loolu it daa fësal bu baax delluwaay gi nga xam ne nekkoon na ko moom sëriñ bi. loolu sëriñ Basiiru wax it ne kër sëriñ bi fa la ñépp daa daje jullit ñépp ñi am tarixa ñi bokk ci tarixa xaadiri yaag ñi bokk ci tarixa chazeli yaag bokk ci tarixa tijaan yi ñëpp dañ fa daan daje ba ne tijaan dañ daan wasifa ci biir kër sëñ bi loolu day fësal lool sëñ bi xajoo gi mu xajoo woon jullit ñi ba ñoom ñu xam ko def ko muy seen delluwaay def ko muy seen waajur ci anam gépp moo tax kenn ci suñ mbokki naar yi day day day day mi ngi wax euh, kër sëñ bi ni fa ñëpp daa daje daa jóge fu ne euh, tasiru ilayhi naasu sharqan wa maghriba fa min raakibin bahran wa min raakibin barra wa min ash-shaami jaa'athul wufuudu wa makkatin wa min taybatin jaa'at wa jaa'athum min misra wa jaa'athum min farsil jadidi wa garbihi wa min tanjatin jaa'u wa min tunus al-xadra yu bare bare la yoo xam ne da cay wax dëkk yi nga xam ne nit ñi daanañ fa jóge daanañ jóge Maroc daanañ jóge Égypte daanañ jóge fu ne di ñëw ci sëñ bi di jariñu ci moom ngir njariñ lu yaatu li nga xam ne mi ngi ci moom moo tax zunnoon li di kenn ku nekkoon fii ci réew mi ku mën a way masha Allah daana ñëw na ko ne yaa yaa xillu yaa xillu kam zaara yaa xillu kam zaara hada al baaba min malikin wa min wazirin wa min jinnin wa min malaki ne yow sama waay buntu ko sëñ bii day eh, aka aka ñu fi jaar eh, nit ku baax yàgg na fee jaar borom domba tànk yàgg na fee yàgg na fee jaar borom daraja yàgg na fee jaar malaaka yàgg nañ fee jaar jinne yàgg nañ fee ñëw wane rek ne kër sëriñ bi ñépp eh, xettilukaay lañ ko xettiliku kaay lañ ko defoon waaye bokk na ci it lim ko jural moom sëriñ bi mooy ñépp nanguloon nañ ko ñim jamonoonteel ñépp seeral nañ ko lu baax waxoon naa sànq li ko cheikh li ko alqaadi ma jaxate kala wax euh, tagg ko wax ci moom ne sëñ bi kat delluwaay la ci jullit ñépp laquwaay la ci ñoom wéeruwaay la ci ñoom saa bu ñu amee benn jafe-jafe ci seenu dund man jan malazan mafarran mawilan wazara ماوى لهم في حلول البوس والباس سا بو ني امي ين جافي جافي سيرن بي سين دلواي لون خم ген شيخ سيديا تاغنا سيرن بي سي نوني واي نيانن عمل جولي ني داكو سي الشيخ احمد نعمه اولاها هذه القلائق كلها مولاها نشاو شيخ دال مم خيوال لاغو سن بولم باخه جام ني رك لون رك لا نيبكو بوك واخ آه، وما عيبه وما عيبه الا عباده ربه wa nafa'ul wara fi subhihi wa masaa'i ne sëñ bi daal ñaari sikk yi laa xam ne bu dee am nay sikk moom la am mooy sax ci jaamu yàlla ak sax ci dimbale mbindeef yi bu dee lool sikk la daal ñaar laa xam ci ay sikkam kon loolu it euh, day fësal ne jeexit la ci taxawaay bu am solo boobu mu amoon ci julli ñi ba mujj ñu di ko gis bis ñu di ko xool bët boobu euh, Cheikh Saadu bii moom it bokk ci tarix xaadir seere loolu noonu loolu sëriñ bi ne sëñ bi daal bayit waykat ba waxoon ci sëñ bi rek la la la jekk wala boog jekk na ci sëriñ bi muy xalafa zamanu la yaatiyanna bi mislihi xanisat yaminuka ya zamanu fa kafiri ni àdduna day waatoon nga ne da nga indiwaat ku mel ne cheikhul xadim mi maa ngi lay wax ne la na nga tuub sa ngiñ loolu te xam ne sëriñ bi ku mel ne moom ku mel ne Cheikh Ahmad Bamba moom mën a tuta am ci kaw suuf te ki koy seereel li kilifa diine la goo xam ne dafa amee taalibeem ne ci beneen tariix bu bokk teg bi bi ne waaye dundal gi sëriñ bi dundal mbokk ak jullit moo tax ñëpp nangul ko mbaax gi nekkoon ci moom kon loolu it lu mat a roy la waaye waxtu wee xam ne kon ñu mën cee gën a yaatal ñi nga xam ne sax bokkuñ ci biir diine lislaam ñu ci bari ci ñoom te amante woon ak sëriñ bi mujj nañ ko seereel mbaax kooku mu baax ku mel ne Merlin nga xam ne bi ñuy yóbbu sëriñ bi ci géej gi rapport bi ñu liir ci 5 septembre kooku moo ko bind moo nekkoon directeur de affaires politique ci jamono jooju taraloon lool ci mbirum sëñ bi ci ne faw sëñ bi dañ koy génn réew mi bi ñibbisee moo nekkoon gouverneur général par intérim moo yóbbu sëñ bi gànnaar tamit moo signé décret bi yóbbu sëñ bi gànnaar biñ demee ba 1921 dafa mujjoon nekk gouverneur général bu mag bi nekk ci Dakar woolu sëñ bi nga sëñ bi dem fa. nettali na moom Merlin bi chauffeur bi la ko nettali interprète bi la ko nettali mu nettaliwaat ko ne bi mel Merlin dalale sëñ bi ba mu génn daf koo wax dafa tax ak moom ne ko dey maaraabu bi Ahmadou Bamba mii. laaj yi ma ko laaj ni mu xóote ak tontu yu wër te leer yi ma ci indil xamee naa ci ne nitug yàlla dëgg la ne ko nag te neexut ba neexut waaye dañoo juumoon ci génne gi ñu ko génne woon réew mi lii ki bindoon rapport bi génne sëñ bi moo mujj wax loolu ne neexut ba neexut waaye dañoo dañoo juumoon ci génne bi ko génne woon réew mi waaye kii nitug yàlla dëgg la am na keneen ku ñu wax Antoine Le Self kooku Jurbel la nekkoon dañ ko faa indi woon ngir mu mission bi amoon mooy mu xool siñ bi Ahmadou Bamba mii li muy dund lan la dëgg dëgg dëgg sëñ Bachir nee na ngóor si dafa taraloon ci sëñ bi léeg-léeg bu daa ñëw day bëgg a bett sëñ bi ba xam sëñ bi bu wéetee ci lu muy lu muy def nee am na bis boo xam bi muy ñëw sàkket yi da koy xotti di yàlla ki mu ànd am ku mu àndal mu koy daggal sàkket yi muy yàlla ngir bëgg a bett sëñ bi boo xam ci lu muy ne àggoon nañ ci def délégation ñi ci biir kër gi dem ci sëñ bi ne ko ñaanal yàlla mu mu jëlee fi kii mu dem feneen ndax sonal na la nee na sëñ bi mooñ ne kii dañ maa xamal ne dafay ñëw ngir setal ngir setal loolu rek fi indi nee na leen ndax kii ni taree ba pare sëñ wax loolu daal jaaxal leen waye kañ lañ ko xam bimu démé ba jéxal ba bind rapport bu mag bi nak diko ko yónnee tubaab di len wax nak lim xam ci sëñ bi ci biir rapport mi ngi wax nan len rapport bu gudd a gudd la mi ngi ci internet bi mi ngi téré señ Omar bobu boobu rahmatullah alayhi ne len Cheikh Ahmadou Bamba mi li ne ci mom ci jikko yu rafet ak xol bu sel ak yene lu bax ñep ay nonam ak ay xaritam ag na ci fo xamne ne mbooleem ku ñuy wax ci nit ñu bax ñi buñ ko ci mengal ak mom mu jiitu ko ci moom mi ne leen fi mu àgg ci ragal yàlla it ak ni mu kawee lu yéeme la loo xam ne neexut a wax daan ne li may wax daal mooy ñi gën a réer ci nit ñi gën dàq cee tooñ mooy ñi ko tuumaaloon ne dafa bëgg daray àdduna wala daray nguur ba tax ñu génne woon ko réew mi lii mi ci rapport boobu L'Islam bind ku ci dem da ko ci fekk Antoine Lefebvre rapport boobu mu bind ku ci dem di ko ci fekk lii ki koy seelal sëñ bi du sax ab jullit ne sëñ bi lim yéene mbindee fi ci lu baax ci ñi nga xam ne ay xaritam lañ ak ay noonam ñoo ci am lenn la leen yéene ñoom ñëpp kon yooyu yëpp ma tudd ak yu ma tuddut day wane jeexit gi nga xam ne euh, am na ko ci biir euh, sëriñ bi njaboot gii mu yaroon it noonu lañ ko ci daal royee xam ngeen ku mel ne sëñ Mbàkke Buso radiyallahu anhu ci wàllu relation ak jariñ nit ñi ci xam-xam anam gém ci àgg àgg na relation yi amoon ak waa Mauritanie ñenn ci ñoom mu jël seeni téere euh, bindaat ko firi ko euh, relation yi mu amoon waa Mauritanie ba ci sax makkal makkal makkatal mu karama ñenn ñi muy jariñante ñoom ci wàllu xam-xam euh, am na sax booy dem ci bataaxali Sëñ Mbàkke relation yi mu amoon tax na ba nit daana jógee fii di aji Màkka mu bindal ko procuration bindal ko man Sëñ Mbàkke diw moom maa leen boole nangam nangam nangam loolu di wane dundal gu mu doon dundal moom it uxuwa fillah gi nga xam ne ñi ngi ko royee ci sëriñ bi ku mel ne maam Thierno Birahim noonu la daa jëriñee mbindee fi gis ngeen atum 1935 wax nañ ne dañoo amoon jafe-jafe joxe jiwu ci réew mi tubaab bi dem ci maam Thierno mu lebal leen 60 tonnes 60 tonnes ñu séddale ko baykat yi ci réew mi bi mbay mi jàllee wala bi ñu ko séddalee ba pare ñu ñëw ci moom ak seeni i kayit nee nañ ñëw ne ko dañoo ñëwoon nag ngir tey ñu xool euh, modalité de paiement bi maanaam nuñ la koy fayee daal euh, mu ne tekk diglu leen ñu wax ba pare. mun leen kuy am ak a ñàkk mun leen yéen da ngeen di am ñàkk te man kuy am ak a ñàkk mënuma ko lebal man loola suñu borom laa ko lebaloon leen ko joxee suñu borom laa ko lebal yéen da di am ñàkk te man kuy am a ñàkk mënumaa leblante ak moom muy 60 yoo xam ne dañ ko séddale woon réew mi loolu uxuwa fillah gi mu sàmm ne mënoon na ko joxe taalibe wala mu jël loola joxaat ko ay taalibeem waaye gëm ne jullit ñëpp ci jariñu mu gën ne war naa jariñ jullit ñëpp moo tax mu doxale noonu ku mel ne maam Cheikh di rakk ci sëriñ bi Euh, am na ay mbokk fii ci réew mi ñoo xam ne bokkuñ ci tarixal muridiyya amoon ay jafe-jafe ci seen fañ dëkkoon ba lu am solo ci dëkk ba neexutu tudd waaye lu am solo ci dëkk ba ñu tay la ko ba nar ci am ay jafe-jafe maam si fayal leen ko ne leen def naa ko ngir yàlla loolu ñoom waa dëkk boobu ba léegi dañ koy nettali xëy na jërul àgg ci ay détails am na beneen dëkk boo xam ne nawet bi metti woon na mu ñëw fa mu ñëw ca kay joxe lekk ka fay jaay ci bitig ba ne képp ku fi ñëw ci baykat yi ndax baykat yi ni ñu daan def mooy dañuy leb buñ bayee woon fay ne ko ku fi ñëw bindal lu mu ci ceeb diw jox buñ bayee ba noppi danañ fay ku ci fayut man dinaa fay garanti jullit ñépp te fa ëppoon moom duñ ay murit loolu moom mooy li yooyu yëpp di wane ne sëriñ bi taxawaay boobu mu amoon njaboot gi daan nañ ko ci roy njaboot gi jaaroon nañ ci yoon def nay jeexit buñ ñëwee ci biir murit gi jeexit yi ci def kenn xamul nu mu toll. Euh, damay ne waxtu yi ñu ma waxoon daanaka juróomi moo ci des ne kon mënoon seen na ci gën a yaatal bu baax a baax ci wax jeexit yim gëna def ci biir julit ñi rawati na ci biir mourid gi mom waye ginnaaw waxtu bi sori na xamna manes mënees na koo tënk foofu kon buñ doon tëj Sëñ Abdou Lahad dañuy wax ne rek li ñuy waxtane tay moy muy aluxuwa fillah moy mbokkoo gi nga xamne mo dox ci digënté julit ñi mbir la mo xamne mo am solo la l'islam fu mu àggoon ëlëk li bokkoon na ci la ko fa agalé kon l'islam lu mu yëkëté yëkkateekoo woon démb tey jii mënta yëkkatikoo ci lu dul loolu kon jot na sëkkit ñu bàyyiwaat xel ci ne lii ñu boole mooy mbokk ak diine gi faaw jullit bu ne sàmm ko faw jullit bu ne sàmm ko te lépp loo xam ne da ko yàq mu wattandiku ñu wattandiku parparloo bi wattandiku boddikonte wattandiku xeebante bi ci suñu biir te xam ne ñun ñëpp ñu bokk lu ñu bëgg ku ne nag am na yoon moom jàpp ne moo gën a gaaw mu ko faa jaar kon kenn ku ne faw mu jii ma sàmm mbokk gi te xam ne mooy lii dooleel lislaam mooy lii dooleel jullit bu ñu fi dellusee buñ ci bëggee roy waay sëriñ bi mat na sëkk te lim ci jëf waxtaane feeñee na ci yaakaar naa ne uxuwa fillah sëñ bi lim ci tatbiq lim ci jëf moo gën a kawe fuuf lim ci tanzir lim ci maanaam lim ci pratiquer moo gën a yaatu lim ci théoriser ndax sëñ bi léppam noonu la sëñ bi li taxoon mag ñi topp ko mooy da na a ci lépp da leen a dàq jàng dàq leen gën daq leen a jaamu yàlla gën leen a ragal yàlla gën leen a lépp ñu ñu topp ci ginnaaw kon loolu it jullit ñi rawatina ñi ne fii moom war nañu xam ne am nañu royuwaay bu ñu dellu ci anam gii ci mbir mii di mbokkoo gi nga xam ne moo war a am ci biir lislaam doy na ci rek li sëriñ bi wax ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat jullit ñépp samay mbokk lañ góor ñi ak jigéen ñi àll googu noonu benn jullit génn ci kon jullit ñépp nañ leen xool bët boobu moo gën bokk na ci liñ ci jàngatee ci waxtaan wi it ne jot na sëkkit ñu jël sëriñ bi wan ko àdduna bi ndax nit ñi mën nañ cee jariñu jot na sëkk ñu jël sëñ bi wan ko àdduna bi ngir ñu mën cee jariñu wan ngi ñu leen koy wan nag ci ay anam yu wuute la mën nañ leen ko wan ci ay waxtaan waaye bi ci ëpp solo mooy ñu wan leen ko ci suñu jëf wan leen ko ci jikko yi kenn ku nekk ci ñun gëm ne moom moo war a jàllale message sëriñ bi ci anam gii ci wàllu suluk mooy li Seydina Ali waxoon ne xaatibu naasa wa antum saamituun fexe leen ba nit ñi ngeen di wax ñoom te seen seen seen seen gémmiñ di mooy jëf leen ñuy gis jëf leen ñuy gis kon loolu it taalibe bu ne war naa gëm ne moom ab ambassadeur la ci sëriñ bi ci fu ne ba ci biir këram gin ne war na faa nekkal sëriñ bi ba ñëpp di ci roy maanaam ci gàttal ku ne ci ñun war naa fexe ba ku ko gis xemmeem sëriñ bi ak waa këram ku jëflante ak moom gën a wormaal gën a wet gën a fonk sëriñ bi ak waa këram loolu lu gàllu ci suñuy loos la ñun ñëpp bu ñu ko yëgee ak bu ñu ko yëgut maa ngi delluwaat di santaat bu baax daayiratu Muxaddamatul Xidma di ko tàmbalee ci suñu nijaay sëriñ Afia di leen ñaanal suñu borom na leen te barkeel seen yëngu te fay leen euh, di leen sant bu baax ci tur yi taalibe Cheikhul Xadim yëpp ñëpp rafetlu nañ seen taxawaay ci nii ñu doxee ci ndigalul sëriñ bi fexe nañ ba jëfee ko ni ko sëriñ bi waxee ndax jotaay yi it ku fi miin a ñëw ku fi daa ñëw ñëw fi tey di nga xam ne euh, ak soppiku am na wér-wér soppiku ko waral nag muy mbas mii di am yàlla na suñu borom dimbali ñu ci barkeb sëriñ bi ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teggil ko jullit ñi teggil ko adduna bi yëpp ba ñu delluwaat ci suñu sago de yëpp ñu defa ñu di ko def nañ ko daa defee euh, loolu yomb na suñu borom yàlla ñu ko defal euh, maa ngi yemale fii kon sama kàddu di jégalu bu baax a baax lépp loo xam ne rek jub na ci yéene ji weesu woon na loolu lépp loo xam ne euh, demee na ci demeewu ci noonu it suñu matadale rek ñoo ngi koy tuub di ko jégalu di tuubal yàlla di jégalu sëriñ bi di sant mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi دعوت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرابطة الخديمية للباحثين والدارسين بكرة بلغة الشيخ الخديم في خم خم ñoo leen di yëgal seen fukkeelu téere bi ñu génne mu tudd diwaanu saadaati muridin fii am daaxi xayril mursalin di téere boo xam ne dañ cee dajal lenn ci xasida Cheikhul Xadim radiyallahu ay xasida yoo xam ne sëriñ bi da ciy deeyaale ak suñu borom ak di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere bi nag mën na juróomi téeméer ak fanweer ci ay xët képp ku ci bëgg mën naa dem ci barab yi ñu wecc ko ay téere ci biir réew mi ñu koy wecc ko 7000 francs képp ku ci bëgg ay leeralit mën naa woote ci numéro yooyu ngeen di seen wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu sa benn kafe daa dàq ab commissaire akub commandant nga kay follee ka sànk ka tëj sa benn kaasub kafe daa dàq ab commissaire akub commandant nga kay follee ka sànq ka sa wenn lor woone tëf nit benn rekk kafe daa booley lor ak aajoo ki ragg di faj asna khadim di kër gu yëngu ci mbindum alquranul karim ak xasida ci mbindum rafet te wow ak mol yu taru mo leen di jaajëfal ci safoo gi ngeen ko safoo ci walu groupe asna khadim indil na leen mbokki lepp luy tax seen wàccaay gëna yewon ci bagage yu murite lolu lepp luy xeetu accessoire indil na leen ko ay jallabi makhana kurus martumi sijada dal dal ko lu soxna yi marakis zamzam der sang ak mbollem xeeti bagage amna boki fi mbokki kess yi ngeen mëna denc sen kamil alquran wala khasida group asna khadim indi na len tamit ay tableau khasida yu rafet ngir taral seni barab batay yemb na fi kamil alquran ci mind ak mol yu wuti bu ngeen ñewé fi ci group asna khadim amna ay dool khasida yu bari lol te wuti ngir nak ngeen mëna jot ci liggéeyub group asna khadim fek lay ñu tuuba ñoo ngi ci xayra jakarlo kër serigne modou bu se jeng wala nga woti ci 76 128 28 28 77 244 19 19 bu dee dakar grand yof hlm padwa garage al azhar Serigne Mourtada si wetu daara yi Serigne Fallou Chaybou wala 77 070 88 43 77 844 17 44 groupe Asna Khadim di Jam di ñaanal